lii fan la tey suba fan actif dama laaj. ak bagage yu bëri. ak bagage yu bëri. jaajëf waay. notre camarade Guy et notre camarade Assane. dinaa Camarade, ça va Alhamdulillah. On se bat. jox ma affaire bi Ndiaye Ndiaye mën nga ma jël benn photo ak Assane après non. waxal tooñkat yi ñu bàyyi tooñ. waaw waaw ñu bàyyi tooñ rek. encore tooñ jeexul xeer. Eh il est toujours aussi fort. bilaay

merci gan bi yow léeg-léeg ñu jël sa ne nekk ni di photo ah, ah, ah gan bi <laughs> ñu jël sa bagay sax Voilà, la sortie de mais njàmbaar bu milliard. waaw seen doom kenn du ko am na ñoo xam ne buñ fekkee jamono ñoom la. waaw doon buur. ku ko fekkee te tey si njàmbaar si foo ko fekkee woon ak jàmm ngay doon. li fi nekkoon jugu bi doon xeexe ñu fay xeexe ña doon gañ yi gañ mhm. mais ni ngeen xam ne du ngeen nekk. Mhm. Sénégal ñëpp ñu ngi seen ginnaaw. ñenn ñi dañ ko ñëwaat ñenn ñi seen yëpp yéen a li ngeen nekk neexul mais njàmbaar neexul moom jàpp yàlla moom lañ ko gàtt ku bànneex ñoom doo fi am jàpp xam ne àdduna yëpp seen ginnaaw ñu gën a góorgóorlu yàlla na yàlla suturaat

man la Guy Marius Sagna gis ngeen ko je viens de sortir euh, maa ngi soog a génn nii ci kaso bu Sébikotane maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp yéen ñëpp ñëpp maa ngi leen di gërëm yéen waa Sénégal yéen nekk Afrique fu nekk yéen ñi nekk fu nekk ci àddina bi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp ndaxte tey jii nii bu fekkee mën naa génn ginnaaw yàlla yéen na donc maa ngi leen di gërëm et ah xeex bi nag dañ koy wéyal euh, la lutte continue et incha allah nous vaincrons jërë ngeen